mbokk yi nii ñu suivre suñu chaîne bii di Sunugal 24 point net mbégteeg bànneex teenam di dalal ki nga xam ne xam-xam dafa màcc lool lool ci wàllu faj cosaan ak aada fii ci réew mi ak bitim réew Cheikh bi xam naa balaa ñu dugg si laaj beeg tontu dañ bàyyi nga nuyu askan bii di la suivre Sunugal 24 point net Cheikh di la dalal di la wax asalaamaaleykum aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmani al asrara bi fadlihi ibadahu al alxaaliqi l arshi maa alkursiyi wallaahi walqalami duna ayi wawa rabbun laa yakunu illa wafqa muraadi ala wa jalla summa salaatu ala qutbil wujud wa alihi wa sahbihi huwa fil wuhud mbokk yi ñiy siifur ci Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di am mbégte ak bànneex ngir war a waxtaane ci wàllu euh, xam-xam war cee wax euh, yaatal ci lu bare bare bare bare ci wàllu xam-xam jërëjëf koo koy ma Mahmadan Meng xam-xamam màcc lool kenn dootu ko wax si wàllu faj cosaan ak aada fii ci réew mi nag ak réew Cheikh balaa ñuy dugg ci laaj bi tam damay laaj xam-xam bu wér bi nga yor ba képp koo jëflante si wàllum ñaan yàlla rek aajam faju xam-xam bu wér boobu loolu doon la am fan la jógee xam-xam boobu waaw xam-xam boobu hmm. dafa nekk ndono hmm. ndono loo xam ne dafa jógee ci suñu maamaati maam hmm. wàcc ci suñu waajur ba ak si suñu euh, suñu waajur Tuubaa boo doon si cité si année quatre-vingt yi ñaari nit ñi fa dàqoon a ñaan ci la bokk muy Serigne Bàcc Mbeng ñëpp xamoon ko boo xoolee xam-xam nag dafa séddali ko boo xoolee ci ay fànn lasraar mooy li nga xamante si ni moo moom la gaa yu gën yu a bëri di génn si télé bi di wax waaye jëmmi lasraar tey bu ñu la ko doon taarifal mhm. da ngay gis mooy dañ naan la ay ilmu nujum ay mu nujum mooy wàllu astronomie astronomie ñu ne la ilmul xawaatim mooy li lay jàngal wàllu xaatim ilmul adat mooy chiffre ilmul xuruf mooy lettre hmm. yooyu lañ lay waxal mais loolu la Abdul Fattah wax ne loolu moom la ñuy wax lasaraar mais am na lu gën a pire loolu bu ñu wax lasaraar dëgg dëgg dëgg mooy secret hmm. te bu ñuy wax secret mooy lan mooy ismillah al ahsam boo xoolee ismillah al ahsam boobu euh, suñu borom subhanahu wa taala daf ko joxoñ toujours ci alquran ndax euh, yonent bi sallallahu yàlla def na ko bu la sama jaam bi ñëwee ci man di la laaj ci man mhm. ne la ne ko xamal ko ne man dama jege mhm. jege gi mooy lan mooy nañ ma ñaan mhm. mooy wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i mais nag ay une condition mooy iza da'ani ci kaw ñi ñaan ko loolu mooy li nga xamante si mooy la moom la alquran wax mu mel ni da am problème ci fan lañ ko war a ñaanee moom moom moom moom moom yàlla mu ne la walillahi al asmaul husna fad'uhu biha mu ne yàlla am na ay ay ay tur boo ko soxlaa ci nga ko ciy woo dafa am ñuy wax naan bu yàlla amoon téléphone alors dana ko sonal mais am na. ndax mooy ismul al aqsam bi ñu mën a mën a bi ñu war a mën a jotee yàlla turam si nañ ko mën a jotee. Hmm. léegi nga am problème ci ban tur la war a doon. mu ne leneen qul ud'u allaha aw ud'u rahman ayyamma tad'u mu ne ñaanal yàlla mi nga xam ne ma aj yërëme mhm. mu mel ni da nga ne ko ci ban mu ne ayyamma tad'u falahu asmaul husna mhm. boo ko ci ñaanee rek loolu la léegi nag mu ñëw ci wàllu xawaatim mhm. xawaatim mu am musallas murabba muxammas mu musamman ba ashara alf bu yut benn bu ci nekk tey bu ñu ko taamoon tabla lu ñuy jël waxal la ci lu leer naññ loo xamante si ni amul kenn kuy dox ci ñeenti borne Sénégal yi koo ci mën a wax ko lu lu ko kawe waaw xam naa ni jot gi ma an mayu ko waaye jërëjëf sëñ bi loolu am na solo mais lan xam-xamu listixaar bi nga yor hmm. moom moom ba képp koo listixaaral nga ñaanal ko yàlla rek hmm. lépp aajoom faju lépp lépp lépp kenn dootu ko waxati xam-xam boobu listixaar lan nga lan nga ñu ko mën a wax askan bi waaw bu ñu ko dañoo waxal listixaar hmm. euh, bu ñu ne bagage yi ndono lépp da nga koy doon. dafa am ñu naan sax lasaraar duñ ko doon. mais dañ koy doon. dañ koy doon dañ koy doon ndax dereti ijaaba bi daw si say maamaati maam wàcc ci sa waajur. Mhm. bu wàccee si yow doo yem ki nga xamante ne si ni baayam leneen la woon. loolu loolu loolu loolu da ci am. Mhm. bu dee listixaar nag. dañ koy fanaanoo am na ñu naan seet waaye saxaar moom nekk loo xam ne dañ koy fanaanoo te ci alxuraan lañ koy defee ci ay tur yàlla yoo xamante si nii lépp luñ la ci wax amul mbindeef muy dox ci kaw moom lépp lépp si alxuraan la moom waaw lépp ci alxuraan la mm-hmm. man lépp ci alxuraan la bi ma amee fukki at ak benn ci laa mokkal alxuraan fukki at ak ñeent ba tey maa ngi ci lasraar mm-hmm. Euh, yàgg ci lool sax. Mhm. nit ñi ñoo ne ñoo poussé pour ñu partager lii ak ñi nga xamante ni mooy àdduna bi parce que du yoon. ñu yemale ko ci suñu bopp. Mm. na solo ñu dem ci wàllum këyit ki nga xamante ni bëgg nekk na bitim réew mm. ki nga xamante ni bëgg tukki tamit li jënti këyit ba sonn këyit jafe ko lool kooku moom yaa ngi a xam nga boo xoolee ñaar la rek. Mm. ki nga xamante ni day waaj bëgg a dem. ak bu demee mu bëgg ñëw. dëgg la dëgg la bu dee kii waaj bëgg dem amul benn passeport Mm-hmm. man mahmadan ma fanaanoon a ñetti fan nga dem ambassade ñu osé di xool bañ laa may kooku mm-hmm. mënul nekk c'est impossible mosuñ maa gàntu ci wàllu passeport mm-hmm. waaw ni mu amee ci ci ci passeport bi pour ñu tamponner le visa noonu la amee tamit ci bitim réew képp ku ma xam xam na ci loolu kooku moom dina xam nañ xam gu wér a wér a wér a wér a ca ku yàlla bind waaw kooku moom yàlla yàlla defal nañu si tawfiq jërëjëf kookoy Serigne Mahmadal mais xam xam-xam maanaam muy feebar boo xamante ne nga leen baal ma ci kàddu mooy feebar bu complexe boo xamante ne da ngay gis ku ko jànkonteel sax pour mu ñëw dis la feebaram sax problème mu doon feebar bu complexe moom tële néew kattan da ngay mën sa bopp jékki-jékki ba si yàgg doo mën a sa bopp kooku moom tële yaa ngi ciy liggéey lu am solo am solo tële moom waaw hmm. bu fekkee da nga jël wàllu tële hmm. dafa séddale ko ay ay ay ay ay sabab yi dëgg la am na yoo xam ne dañ nit ki moo lay yàq lu mel ni sax nga am soxna takk keneen nga war faa fanaani ñu gàllankoor la boo ñëwee ci moom normal loolu day am beneen bi tamit mooy dafay amaat ci beneen côté mooy koo xamante si ni dafa yor wàllu rab rab yooyu di ko eh, téye pour du mën a ànd ak soxna ah. mais ala kulli xaalis bu mu ci mën a doon moom dañ koy dindi dindi gu wér a wér goo xamante si nii moom nit ñi. Eh, du doon loo xamante ni da nga koy def du mu mën boppam quelque temps dootu mën. déedéet waxuma yëfi xale yooyu. Mm, mm. comme ay def ko nii mu mu kii déedéet. Mm. man dindi laa wax. man ma ne dama ne dindi sànni teg waaw wekki teg fële. kooku man moom laa wax. waaw bokkuma ñi nga xamante dañuy wax ay déedéet dindi wekki loo xam ne da da ko judduwaale nag moom loolu. bu fekkee da nga ko judduwaale moom. man Mahamadan moom mënul dindi loolu. mënul dindi loolu moom leer na. la mais Cheikh bi loolu am na solo ñu dem ci wàllu ki nga xam bëgg gën a bayra ak kaaraange te foo nee bayra wax kaaraange foo nee kaaraange kenn mënul dem bàyyi moroom bayra ak kaaraange moom moom lool nga ma ci mën a wax. waaw bu fekkee ne da jël wàllu wàllu wàllu wàllu bayre bayre si jëmmi boppam moo kaaraange ñoom ñoo ànd. Mhm. boo nee bayra da nga wax kaaraange. Mhm, mhm. bu fekkee ne nit ki si boppam am na benn bayre bi te amul kaaraange du ko jik mais ala kulli xaale bu dee bayre bi. dañ koy liggéey ci alxuraan. Mm, def ko ci njaq li ñuy wax yaay caam baay caam ñoo ñoo koy liggéey. nga def ko xàmb di ko sangoo. kooku moom amul kenn koo ne si nii moom dañu la sut ci sa maas ni turu yàlla yi jógee noonu ngay jógee ndax dañ koy liggéey ci juróom-ñeent fukki turu yàlla yi ak juróom-ñeent moom si lañ koy liggéeyee mm. kooku moom ku ne xam na si euh, man ñëpp xam ubbeeku ki nga xam ne bëgg na ubbeeku affaire am yëpp buntam yëpp ubbeeku moom kooku kooku tamit lan ma ci mën a wax ubbeeku bu dee ubbeeku comme ni nga wax noonu dafa seetlu ko ay ay ay fànn xam nga ubbeeku pour di mën a for dara bokk la comme li nga wax noonu ubbeeku. bunt yëpp mm. bunt yëpp feeñ. moom la ñuy wax taal. Mm-hmm. kooku tamit ñu ngi koy def ci leket lañ koy liggéeyee. Mm-hmm. Euh, ci ay sondeel ci lañ koy liggéeyee. mais lépp dafay delluwaat ci li nga xamante ne moom mooy al al al alquran. Mm-hmm. amul kenn koo xamante si nii danga ko def. Euh, nga toog ñetti weer te déggule ci wàllu am-am. dëgg la kooku moom mënul nekk xanaa yàlla ñàkk koo namm ci yow. ba bañ laa jotale ci Mahmadan mm-hmm. loolu la waaye loolu moom xalaat kulli xaal moom def naa ko defati na ko defati Cheikh bi loolu am solo ñu dem ci wàllum nopp maanaam boole mm-hmm. nopp loolu tamit yaa ngi ci liggéey lu am solo am solo am nopp waaw waaw waaw bu dee wàllum nopp mm-hmm. dafay dafay séddlu ko ay pàcc boo dee xool ba tey xam-xam moom moom moo demee noonu da ngay xool ki nga xamante si dafay bëggante ak nit ki kilifa ya bañ dëgg la ki nga xamante si ni dafay bëggante nit ki si boppam dafa bëgg nit ki nit ki bañ mm-hmm. bu mu ci mën a doon dañ koy dañ dañ dañ koy liggéey dañ koy saafara mm-hmm. te insha allahu rabbi bu ñëwee dana ci am ndam mm-hmm. waaw man lépp lu ma la wax dafa wér ni mbind bu la neexee nga jël bi ka kay bind kenn du ko dindi ci kaw suuf dëgg la dëgg la waaw jërëjëf kooku mooy Serigne Mahmadane Mbengue xam-xamam màcc loolu kenn dootu wax numéro téléphone yooyu noonu affiche si baaru 83 10 ma bamtuwaat leen ko 77 634 83 10 ba beneen numéro bi mooy Tigo bi mën nga ko woowee mooy 76 468 74 58 ma bamtuwaat leen 76. 468 74 58 Cheikh ba léegi ñu xuus si waxtaan xam naa lu ñu des ci wax du bariwul ñu dem si kii nu mu tuddati euh, bay bayra bayra bu wér a wér a wér a wér bayra bu wér mm-hmm. kooku moom lan lan nga ko mën a ba mu am bayra bu wér a wér a bayra waaw bayra bu wér mooy comme li ma la waxoon léegi mooy li ñuy def si mm-hmm. njaq si mm-hmm. njaq lañ koy def si yàlla ñoom ñoo koy liggéeyee xam nga boo xoolee turu yàlla yi juróom-ñeent fukk ak dañ koy liggéey ci juróom-ñeent fukki sant ak juróom-ñeent mm-hmm. def ko ci njaq lu ñuy wax yaay caam baay caam mm-hmm. dafa loo ko xamoo nga di ko sa sangoo mm-hmm. amul kenn ku lay mën a tëree jóg kooku moom kooku maa wax waaw fay coow moom coow nga xamante ne coow coow sax du da koy topp ak ki nga xamante dafa bëgg a ñu koy maanaam nekk ci problème mu bëgg a coow li dañ daal waaw fay coow loolu waaw loolu tamit nii yàlla may nañ si boo xoolee fay coow dañ koy liggéey defal la ko léegi léegi nga dugg fee suur ko ni ma la ko waxee gis nga boo suulee loolu. fi ngay toog nga koy suulee bu fekkee fi ngay toog demul tribunal wax ko kenn ku yàlla bi ne du ko waxati. dootu ko waxati waaw kooku moom kooku moom maa la ko wax ci nen nag lañ koy liggéey. Ah, waaw ci nen dëgg waaw lañ koy liggéey mbindeef du ko dindi. dëgg la mais feebar boo ko xoolee dëgg bi bëri na feebar loolu feebar bu mu mën mais dégg naa képp koo jëflanteel ci wàllu feebar bu mu mënti doon rek aajam faj. lu war a leen mel. waaw bu dee wàllu feeja feebar. Ah, yàlla dama ci may may goo xam ne. Mm-hmm. fa ma dëkk ci mm-hmm. ñeenti borne yi amul kenn koo xam ne da nga tawat ma ne fa mhm. ngay dem hôpital mhm. kooku moom mënul nekk moom mhm. sama saafara soo ko naanee tey tey bu subaa nga gis njariñam dëgg la kooku maa la ko wax yàgg naa fekk nit koo xam ne tëdd na ay mbokkam wër ko yaam yeeg baam yeeg ñu woo ñëpp yaakaar na day faatu man Mouhamadou maa ko saafara def naa ko si parcelle gi def naa ko damel def naa ko fële ñëpp xam nañ loolu waaw mais ñu dem si ji lool ba góor bi nga xam ne tamit bëgg soxna soxna jafe ko lool ba ma bamtu question yépp maanaam jigéen ji nga xam ne ndeysaan dafa bëgg am doom bari na lool boo xoolee jigéen ñi nga xam ne dañuy bëgg am njaboot njaboot jafe leen lool lool mais loolu yaa ngi liggéey lu am solo tamit dégg naa ah, waaw loolu ñu ngi koy liggéey boo xoolee dañ koy liggéey si 21 jours mm-hmm. moom nga koy jëfandikoo mm-hmm. mais boo ko jëfandikoo 21 mm-hmm. jours régal moom bi ci topp doo ko gisati mooy wane na amu ah, ah, wann nga wann nga lo kooku moom moom it euh, def nañ ko defati ko xam-xam la yoo xamante si dafa nekk ndono mhm. ñu def ci ay résultats yoo xam ne dégg dafa jéggi dafa yii ma la wax nii yëpp laa la wax mhm. amul benn boo xamante si nii jaaxalu ma ci ay nit mhm. même ay sëriñ laa dama leen see jaaxal waaw man bokk naa si ñi nga xamante si nii sëriñ si waxuma dóorkat yi di di ne si internet bi di fore sëriñ si si jëmmi boppam ñi ñu reconnaître nga xam ne boo ñëwoon tey dañuy wàcc jox la man ci laa bokk dëgg la dëgg la waaw kooku moom ñi ma xam ñi xam nañu mais dégg naa tamit da ngay faj règle règle jigéen ji nga xam ne règle da ko sonal loolu waaw muy kii chaque jour waaw boo xoolee règle dafa séddale ko si ñaar boo dee xool ba tey mm-hmm. ndax ki nga xamante si ni règle am dañ koo liggéey mm-hmm. muy génn day am mm-hmm. ndax dañ koy def fi mu fi jigéen yi soxna yi sawee bu sawee rek ndeysaan règle bi da ngay gis ne dafay dafay génn ak ki nga xamante si ni rab moo ko def bu mu ci mën a doon boo ñëwee moom ci nen boo xam ne dañuy génn ñam wacce ne def ko ci moom lañ koy liggéeyee nga suuroo ko 24 heures nga tàqali ko moom li ma lay wax amul ma dem te ñëw amul maanaam traitement bi 24 lay 24 heures da koy suuroo xëy gisatoo ko gisatoo ko waaw def naa ko defati ko ñëpp xam nañ ma ci loolu ko na solo ñu dem si xam naa ne léegi waxtu bi dem waaye du ma dem te laaju ma la dégg naa am na nomb yu mhm. moom nomb beeg jaaro bi ci boo xoolee Cheikh bi ndomba yi ndomba yi da ngay gis ne am na ay nit ñoo xamante si nii léeg-léeg ni leen yàlla bindee seen wàllu rawxaan dañuy am wàllu jafe-jafe pour mën a aw yoon léegi léeg dañuy xaw a jàdd yoon di def ay safaan xeet yu mel noonu mhm. donte duñ ko bëgg sax mhm. bu fekkee ne takk nga ndomba googu noonu ñuy liggéey mhm. nga takk ndomba googu noonu boo lépp lépp loo xamante si ni mën nga koo def ci kaw suuf si jàmm lay mujj waaw mais nag du ku nekk lañ koy defal mm. bu fekkee da nga dañ laa xoolal say mbir gis ne yow mi yàqkat nga di la mm. defaral ndomb yooyu mm. jaaro yi tamit dañ koy liggéey jaaro bi dafay séddale ko ci ubbeeku dafay dox ci kaaraange dafay dox ci ñëpp xam nañ xam nañ xam nañ ku takk sama jaaro da nga xam ne bokku dal euh, jaaro yi gars yi di liñ naan roy duñ roog piir déedéet déedéet mais jigéen ji nga xam ne dafa nekk en état ñu war ko opérer dëgg naa yooyu tamit yaa ngi ci yaa ngi ci yëngutu am solo am solo waaw loolu dañ ci yëngutu mm-hmm. yëngu boo xamante ni jaaxal na ñëpp. dëgg la dëgg la euh, li ma la ci mën a wax mooy. Mm-hmm. Eh, kii ñi ci mujj jëflanteel. Mm-hmm. matul weer. Euh, damel gii la dëkk. damel dëgg la waaw boo ba mu ko jëfandikoo mm-hmm. euh, jë médecin bi si jëm boppam. loolu da koo jaaxal. waaye nag da koo nëbbatu. waaye bi mu ko defee da koy gis. kooku ma man maa la ko wax moom. opéré moom nga ñëw ci Mahmadan wax ko mu jox la saafara mu naan ko ñu opéré ko hmm. mënul nekk jant bu amee rek ñëwal ma hmm. double triplé li nga ma delloo kooku moom mënul nekk li may wax fii nag moom dama koy wax hmm. ngir sant yàlla ak ñi nga xamante si ni yàgg na maa ma poussé ma a a yaatal bokk ak jaami yàlla yi ak xam-xam bi nga xamante si ni moom moo loolu ma xam mooy def mooy baat ak tontu dëgg la dëgg la waaw loolu moom ñëpp ma ko ci xam xam moom waaw kooku moom nit moom noonu la demee moom jërëjëf kooku mooy Serigne Mahmadane Mbengue xam-xamam màcc lool si wàllu faj cosaan ak aada fii ci réew mi nag ak bitim réew kenn dootu ko wax numéro téléphone yaa ngi nga jot si 77 634 83 10 baa nga jot si numéro waaw li ñuy tàggatoo rek. Mm-hmm. mooy dafay delluwaat ci wàllu xam-xam. dëgg la. ñu xam ne képp koo xam ne yàlla may na la ci wàllu xam-xam mi ngi jógee ko ci alxuraan moom mooy baasu xam-xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xam-xam de boo ko teyee gen wàllu xam-xam moo di alxuraan waaw bu la yàlla joxee alxuraan nag nga wëlbatu ko jàng secret yooyu si yéen boppam am nga sañ-sañu waaye li may ñaan ñi nga xamante si ni mooy suñu mbokk yi ak euh, mooy sëriñ si ñu gën a am yërmande si ki nga xamante si ni dafa feebar tawat sukk ay ci moom yàlla ci moom ñu ñu yërëm ko bañ koo teg yenn yi mm-hmm. te xam ne tawat jooju ko daal ba ngay profité bëgg nekk si moom mënoon na laa dal mm-hmm. yàlla teggil la ko nañ bàyyi lépp loo xam ne wax nga ko si loo xamante ni loo man la mm-hmm. mu nekk ni looy def la ak ñi nga xamante ni dañoo ñoo bëgg a yàq suñu métier bi ne moom lañ doon xaw ma luñ doon ñoom mais nañ dellu moom day na man lu nekk nag am na solo waaw kooku moom ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax ñu ngi sant ñëpp Ah, di gërëm ñëpp ah, di yaakaar ne nit ñi danañ ñëw pour ñu jëfandikoo ñu bokk li nga xamante ni moom la ñu yàlla yàlla yàlla yàlla baaxee ndax seen seen njariñ la ah, waaw loolu moom loolu foofu la ñuy tàggatoo